dal le nag jàmm yi discours du président Macky Sall yekiti ci forum de Paris bu doon waxtaane walup jamm naka lay bi discours tax Le Soleil del ci président Macky Sall yekiti ci forum Bobe, Nan le président Macky Sall di il faut accepter nos différences ndaxte njiitu réew mu Sénégal fofu ci Élysée xamle na ni aduna bi wërngal kep ñun lañ dañoo war def suñu lay katan ba ñun ñëpp ñu dund ci anam Yene Kabidi di enquête Momit it Nan, le président Macky a parlé sans gants président Macky Sall bàyyiwul dara lii di Akure mbëkk mi liggéey ak kuréelu mbootaayu xeet yi Adu. Yere jeeg climat bi lépp daat na ci addu bi yamul na ni forum boobee ñuy amal Fofu France ngir jàmm dellusiwaat ci àdduna bi wërngal këpp jamono ji France Bobu, sax ci Bopam, boppam dafa nekk ci ay guddi bës a président Macky Sall yëkkati li nga dignité président Emmanuel Macron Niang mi nga xamante ne si ni moom moo leen dalal las le quotidien moom it xëye xët wi ni mel addu rek ci li nga xamante ne moom la président Macky Sall wax ginnaaw bu président français bi amale ab discours islamophobe las naan président français bi Emmanuel Macron xam naa ni xaw naa dee ak i gàcce ndaxte daal lu ko Macky Sall wax ci kanamu ñu fa daje woon yëpp loole kenn xamul ban gàcce sax la mun a def ci doomi aadama ba waral yéene bi naan Qui aime bien châtie bien nit ki sax même Boko beugé mais du té yenn say nga wax ko dëgg bi même bu sax dëgg kaani la moo tax réew mu Sénégal président Macky Sall daal di porox ndollu ci bobé lé ndaje ngir wax Emmanuel Macron li nga xamanténé ne mo nek ci biir xolam té nek ci xolu julit yépp Vox Populi Macky Sall réagit depuis Paris au discours islamophobe de la France Vox Populi mom néna président Macky Sall dafa xaar ba dem ci biir France fa doomu français yi nekkee mu daal di fay wax ak Emmanuel Macron diko xamal né li di ciowal waaso xeet ak yi ci topp loolu yëpp jaru ko jamono ji lu ñu tax a jóg mooy nan la ñuy fexe ñun ñëpp ñu dundaat génne ci mbas bi fexe doon benn moo waral yéenekaay bi ba tey naan njiitu réew mi Sénégal foofu ca France dafa mel ni moom moo doon layal ax lu jullit yëpp àdduna ak wax ci nataal yi ñuy nataal ngeen ngi mbindeef di ko soofantal libération ne waaw mbir moomee de soxal na ma ndaxte président Macky Sall lu baax la def ni ko booy di waxee ak axlul islam bi yëpp mbirum immigration bi buñ ko fàtte de ndaxte tey boo xoolee xale yi bëri ñoo ngi dee ci waax yi day tax ñu soir naan est-ce que lii di Barça wala Barça nekkul li nga xamante ne dafa dellusiwaat ci boppu xale yi ndaxte boo xoolee ab wayjur buy jël luy toll ci juróom fukki junni di jox ab doomam bu am fukki at ak pour mu jël mbëkk mi xamal ne foofu ñàkk pexe fa des moo tax yéenekaay bi di libération naan Barça wala Barça daa mel ni dafa dellusiwaat yéenekaay bi ñu duppee lii moom dafa xëy rek wax ci école année 2020 2021 bi ñu tàmbali ni ki démb muy naan école privée yi jamono ji dañuy ñaxtu li nga xamante ne moom moo di ndaxte jàpp nañ yi dañoo war a mun a fay ba ñoom it ñu mun a fay seen personnel waaye itam ne ci gën a bëri ñoom dañ koo luwee yéenekaay bi Le Témoin moom it xëy addu ci rentrée scolaire ba waral mu bind ci xëtam bu njëkk rentrée scolaire sous tension naan école privée yi dañoo fas yéene ngoy fu ñu ngoy te ci jamono jooju wéjuru ndongo yi ci privé bi ñoom déggawuñu fenn ñii dañoo jàpp ne dañoo war a fay ñii naan ñoom waruñoo fay ndaxte ñoom seen doom yi jànguñu sax ay mois yu bëri ba waral yéenekaay quotidien bii di lii naan ana ñan ci école privée yeeg wéjuru wéyjuru ndongo yi kuy am dëgg wala sax kuy dem ba bàyyi ndaxte ñoom ñaar ñëpp école privée yeeg juru ndongo yi ku ci nekk da ngaa ŋànk rek fu nga ŋànk nan doo bàyyi en tout cas lu ci mënta am mbas bi laal na jur yi waaye itam laal na boroomu école yi mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen lu gënoon a fës ci yéene kaay yi jaa ngeen jëf